رب الورى لك محامد فصل على الذي من اكتفى به وصل بغية همتي وقصى مطلب محمد وسيلتي لعربي بكي M Media Group Nourou Darayni bokki taalibe bokki jullit yi noo ngi di nuyu baax di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan suñu borom subhanahu wa defal nu jàmmi àddina ak àlaxira ci bar Seexna Xaadim kon fas yéene dikkaat insha allahu taala ci sunu jataay bii di yu yóbbalu soxna yi muy zaadu nisaa il muslimaati li nasihatil muminina wal muminaat ñu di ko amale ci ëtt bii di ëttu M Media Group Nour mu mel ni eh, émission yi nga xam ne moo jàll ñoo ngi woon ci xadis boobu nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallama daf ko wax ci ki nga xam ne dafa nam ma takki jigéen te mu bëgg xool jigéen ji nga xam ne mooy ki gën ki nu gën a taamu ci jigéen ñi waxoon nañ ko ci junjuk alquran bi nga xam ne alquran wax na jigéen ji nga xam ne boo ko takkee suñ ko mën la ca wërsëgal njaboot gu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam junj na ko ci ñeent ñooñu nga xam ne des na ci takk ngir jigéen des na des ni takk jigéen muy ki nga xam ne dang koy takk ngir dafa am alal wala danga wala ki nga xam ne dang koy takk ngir dafa am askan wu baax ak ki nga xam ne danga koy takk ngir dafa am taar ak ki nga xam ne danga koy takk ngir moom diini kooku nag mooy ki ci gën mooy ki ci ëpp solo loolu moo tax mu nekk aswar bi zaati diin ñu nekkoon ci sara xadis boobu ba waxoon ne indi nañ ci ay woy ci ay jamono yu yàgg ba indi ci jaaroon ci woy yi ba des na sax xañ na ci kanam waaye li ñu jot a jaar coo ci lan doon euh, jaaraat ñu ko waxee ci b ci bayit di ko tekki lan ci nekk la tax ñu wax ñu wax ko ba indi woon ci ñaari émission bi tey mooy bi ko ñetteel insha allah taala ci wàllu melokaanu jigéen ji nga xam ne boo ko takkee dëgg-dëgg mooy jigéen ji ñu gën a taamu nga xam ne mooy almaratu salihatu gi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moo wax ne addunya mataaun wa ghayri mataa'iha al mar'atu salihatu jigéen marchandise la marchandise mi ci gën a seer mi ci gën gànjaru mooy jigéen ju baax loolu moo taxoon ñu indi melokaan yi nga xam ne moo aju ci jigéen ju baax te muy borom diine tënkoon ko ci ay woy mel ne loolu mooy nekk sunu jotaay tey insha allahu taala ñëwoon nañu yéen jigéen bu dee rambaaj du baax jigéen su dee jëwit baax nettali nekkut lu baax danaa ko wax ndax du lu baax wax nan lan mooy rambaaj ak eh, li nga xam ne mooy ci nar ak li nga xam ne mooy nettali ak jëw ni mu xaraame ak nurali gi ko suñu boom subhanahu wa taala lekk meddum sa moroomu jaam ak niko ko yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxe ne jëw sa moroomam jullit moo gëna a yées lekk middu mbaam wa xiibatul muslim fi xawlil xabiir aqbahu min aklika jifatal xamiir ñu waxoon ne jigéen bu dul sàmm ci wax kàddoom du jóg jëm ci lu baax fu mu dem du am lu baax ku ko fi xam na ko wax jigéen ji nga xam ne moo mooy jigéen ji nga xam ne moo gën ci jigéen ji mooy euh, jigéen ji nga xam ne kàddoom fu mu jóge rek ci lu baax la jëm ndax alquran ne nanu wax waaye nag wax wax yiw waxul na xawlan maarufa waxoon nañ ci kanam waxul na xawlan yàlla ko wax loolu mooy waxul na xawlan maarufa alquran moo ne jigéen mi nanu wax waaye nag bu nuy wax ak ak sabab sa taxan mu ko doon wax nag waaye bu ñuy wax rek nan wax wax yiw loolu moo taxoon ñu jigéen bu dul sàmm ci wax kàddoom du jóg jëm ci lu baax fu mën a dem du am lu baax ku ko fi xam na ma ko wax kon bokk na ci melokaanu jigéen ju baax kaddoom day suufe jigéen wurtaka yëkkati kàddoom ca kaw kàddoom day suufe euh, ku tedd ki ma ngay wax ca ca woy wa wal tax fi di sawtiki dëhëran tuskari bokk na ci melokaanu jigéen ju baax kàddoom day suufee bu ko deful foo mën a dem du am lu baax ku ko fi xam na ma ko wax jigéen ji nga xam ne mooy jigéen ji nga xam ne mooy ki gën a rëy aw làmmeñ te làmmeñ wa ñaaw lool ñu gis ko mu bokk ci tànni fi jigéen ñi amul fenn ku fi gis na ma ko wax wax ne jigéen bu dul sol lu baax yaram wa sax dara du baax ku ko ci am amoo ku baax ku ko fi gis na ma ko wax jigéen waxoon na ne jigéen ak colam dafa war a gudd wërta ak colom dafa war a fatt wërta yaraax ak colam dafa war yaatu wërta xat waaye nag wuuteeg jigéen léegi daanaka boo gisee ni ñu ko waxi nii dafa safaanu ndax bu ak colom dafa war a gudd wërta gàtt léegi moom dañ koy gàttal lool ak colam dafa war a fatt wërta yaraax dañ koy yaraaxal ak colam dafa war a dafa war a yaatu wërta xat dañ koy xatal loolu nag nekkut lu baax loolu moo tax ñu ne jigéen bu dul euh, sol lu baax yaram ba sax dara du baax euh, jigéen ji nga xam ne day muur aw yaramam comme ni ko alquran karim digal di digle ni ko digle yonent bi ak soxna yonent bi ak mboolem jigéeni jullit ñi euh, budul sax budul solo noonu aw yaramam rek waaye bàyyi aw yaramam fu nekk rek mu dem fa ku nekk di jës aw yaramam ngelaw lu nekk di dugg ci aw yaramam lu ko a dal ci xeeti feebar ak xeeti ak xeeti ngelaw yi koy dugg ak sax yaram boo xam ne du baax lépp rek lu ko mën a gaar la loolu moo tax ñuy wax ne jigéen bu dul euh, sol lu baax yaram ba sax dara du baax du yem sax ci yaram bu baax waaye ak wéram sax nag da doon mën a baax ndax ngelaw li nga xam ne mooy dugg moo lay dugg ci xeeti ngelaw mën na laa yépp euh, feebar boo xamul fu mu la mën a jóge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 loo ko wax mu delloo la ko te du wan na tontu comme ni ñu koy waxee kooku mooy jigéen ji weex loolu moo tax ñu jigéen ji wex sëy bu neex kon jigéen ji mel noonu nga xam ne loo ko di jëlale lenn loo wax rek mu jóg tontu la du muñ lenn lenn lu loo euh, du muñ lenn lus ko def te lus ko def mu wax ko kookoy kookoy ab sëyam du neex bu ko defee xeesal ba weex ku wax mu xeex te buñ la xeex te sol lu weex mooy ki nga xam ne ba fi weex ndax ki weex moom xamut barab bi war naa fee xeex wala mu warum fee xeex wala dama sol nangam waruma xeex wala war na waruma xeex eh, buñ te sañse ba jekk dégg ku ko wax lu tuuti mu xeex ak moom ba xotti ay yéreem wala mu xotti yéreem yére ka muy xeexal wala mu taqal ay yéreem wala mu taqal yére ka muy xeexal loolu moo tax ñoo ñu wax ne xeesal ba weex te eh, bañ la xeex xeesal ba weex xeesal ba weex ku wax mu xeex te buñ la xeex te sol lu weex du fekke sax suy ñëw di wax mooy man naa ñëw gis coow loo xam ne xamul nu coow la demee mu dugg ca coow la nangu coow la wala mu sax mu def ca loo xam ne lu ko kenn sinduwul ca moom wala loo xam ne ña nga xam ne ñoom ñoo sooke coow la sax ñoom ak gunu ca foofu loolu mooy du fekke sax buy ñëw di wax ñu waxoon ne soo dee wuti ba fi ku weex bu dee ku xees bàyyi ko ndax ku ñuul ko sax mu gën a baax waaye li ma ci jublu xeesal ba weex jikkoom ca sax nekkul lu baax nde xees ba weex teewul a baax soo di wuti ba fi weex ku mel ni ku yor jikko yee nga xam ne moom lañu tudd ci ginnaaw nga xam ne jikkoy yi mer gaaw a xeex di du muñle te du won na kàddu loo ko wax mu tontu la saay boo di wuti jigéen su ci ku mel noonu desee sooy woo teggi ko te seeti feneen ndax kooku du borom diine boo ko tànnee tànnoo borom diine boo ko jëlee jëloo borom diine moo tax moo ne ku ñuul ko sax moo gën a baax jigéen ji nga xam ne dafa ñuul te jikkoom baax lool mooy jigéen moo gën jigéen ji nga xam ne dafa xees lool te jikkoom ñaaw lool ak donte ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk rek mën naa am te it léeg nga gis ko xees gën ku ñuul gën ko nag jikko gën ko am diine wala gis ku ñuul gën ko xees gën ko maanaam gën ko am jikko ëpp ko diine eh, nan ko gën a leeral ci ginnaaw nde xees téewul a bon téewul a ñaaw jikko ñuul waxoon nan ci ginnaaw walay si yu jibu sawadul mi sabatal fata wasu al fahmi Sëriñ Tuubaa nee na yaramuk nit ki du tax mu dese wala mu du tax mu doon du tax mu doon ab def mu doon mu doon ku dese wala mu ñàkk digg kon ñuul baax na waaye tam xees baax na loolu moo tax ñu wax ne ku ñuul ko sax mu gën a baax soo dee wuti ba fi ku ax bu dee ku xees bàyyi ko ndax mooy ku xeesal ku xeesal ku ñuul ko moo gën ko sax moo gën a baax wax nag ne li ma ci jublu mooy ka xeesal ba weex jikkoom ca sax ni nekkul lu baax de xees ba weex te wala baax ki nga xam ne dafa xees te suñ boobu moo ko xeesal kooku moom baax na jikkoom baax boo amee jikko ju baax kooku baax na waaye ki nga xam ne moom xañ na moom topp topp jamono moo tax mu uh, mu soppi aw yaramam su boo moom loolu mandarga la ci jikko joo xam ne jikko ñàkk baax la ndax jikko su baaxee rek nga dal di aw ndigal suñu borom subhanahu wa taala jëf ay ndigalam waaye bàyyi ay tereem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 leen jaajëfal bu baax a baax di leen ndokkeel ci barkeeb weer wu mag yu tëdd yi nga xam ne ci lañ nekk di ñaan mboolem lépp lu lu ci di ngëneel lu ci di tawfeex si moom subhanahu wa taala defal na ko lépp lu si moom ci ki nga xam ne moo wóor si defal na ko zahiran wa batinan ci barke alquran karim asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu lil mustafa xayri xalqi lay mansilatun لو وجهت نحوها كل الورى حاروا رام الورى نيل فضل مسرعين لعوا والفضل عند رسول الله قراروا